jërë ngeen jëf mbokk yi si ànd bi ngeen ànd ak ñun ci Télé Futur Média ñu delluwaat ak yéen encore une fois ci waxtaanu législative 2017 euh, ni ñu ko xamee ñuy dem si njeextal bi euh, mbiri di avancé muy ëpp effervescence commentaires yi ak passion yi di gën di euh, fës ci loolu dañ si ànd ak suñu ay invité ñu tàmbalee ko présentation bi ci sama ndijoor ak Pape Samba Mboup coalition Mbooloo Wàdd Pape Samba ñu ngi lay nuyu. maa lay fay. si mhm. euh, wet bi Doudou Wade euh, coalition Wattu Sénégal euh, président ñu ngi lay nuyu. coalition gagnante. Wattu Sénégal. gagnante Wattu Sénégal mhm. mais gagnante bi dañ koy faral di fàtte souvent. non amuloo droit fàtte ko. Mm, mais Wattu la ñuy wax. noonu amuloo droit fàtte ko noo tudd. TFM tudd wal fajiri. waaw mais moonte woo ma sa tur ma woowee sa tur rek moo gën. coalition gagnante Wattu Sénégal. d' accord alors si sama ndeyjoor Ndella Madior Diouf. convention citoyenne neneen Ndella ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. di mm-hmm. nuyu tous les téléspectateurs mm-hmm. Sénégal Moussa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw di leexal ne Ousmane Badiane ñu ngi koy xaarandi moom mu war fi toogal Benno Bokk Yaakaar mu ngi ci yoon bi njàggatul tuuti euh, mu yegg si si buumu jokkoo bi dañ si jokko ak professeur euh, Ousmane Sène moom it dina bokk ci débat bi alors euh, laaj bu njëkk bi mooy li xew tey gën a. nekk actualité maanaam marche bi nga xamante ni moom moo amoon euh, ci njiitalu maître Abdoulaye Wade alors Pape Samba Mboup naka ngay réagir est-ce que provocation la marche bi wala c'était une marche légitime pour yow. merci euh, question bi ma posé marche bi moom xamuma nu mu demee. Mm-hmm. c'est-à-dire de moment seetaanuma amaguma encore ay information ci marche bi. Mm-hmm. xaw ma am na xaw ma amul mais Euh, jotuma suma carte d'identité mm-hmm. donc je concerné mm-hmm. mënoon naa dem marche normalement. jox demuloo alors. demuma mm-hmm. parce que contexte bi la. je suis concerné marche bi. contexte bi bu normaloon. kenn du ma jëkk si marche bi. si lan moo ci anormal finalement. anormal mooy précis oui. si dëkk bi actuellement on en campagne électorale. dëkk bi est en tension. gis ngeen caravane yi ñuy dogalee ñi di xeex ay xeer jënd na ay pàkk ko même ay pistolet gis naa ko jënd nañ ko donc situation bi n'est pas favorable Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp Sénégal Macky rek moom mu ko c'est une chose qui appartient à tous les Sénégalais kon man dama yaakaar ne situation bi ñu toll ñu def luy apaiser tension bi moo gën di def loo xam ne day yokk tension bi te olof njaay nee na bëri reenu bi la bu muy dàmmeekat xamu ko man loolu moo tax demu demuma parce que man je suis un patriote situation bi laajul ñuy augmenter il faut pas en rajouter bien que cette marche man coché naa ko mais à condition ko ñu def ko benn si benn moment boo xam ne c'est propice ñi ñi mën ñoo déglu parce que marche boo koy def ñaxtu la da ngay wax sa lu la naqari donc da nga war a xaar ba ñi ñuy dal nga def sa marché wax li la naqari ñi ñuy dëgg ko ñuy ànd ak yow ànd ak yow ñu ànd est-ce que dans une démocratie euh, démocrate nga euh, libéral nga euh, mm-hmm. pacifiste nga est-ce que dans une démocratie war nañu am ay circonscription marche période bi la war a am ou pas en tant que démocrate ndax war nañu interdire marche non waaw ndax war na période bi la war a am marche wala waru am période bi yow en tant que. non période marche ak période marche moom hmm. man amul. citoyen saa yu saa yu xam saa yu xam ne citoyen yaakaar nañ ne. Hmm. war nañu jënn parce que wax nañu seen i seen i mbëbët kenn faalewu leen. Hmm. ñu war a jënn nag pour wax ko publiquement. dañ lañ ko bari c'est inscrit dans la constitution. la marche Ablaye Wade moo ko ci def. Ablaye Wade moo démocratiser la marche. ne nit euh, marche yi war nañu marché. moom mi ko def nag. dafa war a xam ne. mais daan na ko tere moom it ay moment. dina ko tere pour des raisons de contexte. non dina ko tere puisque marche moom. Euh, c'est autorisé. Mm-hmm. mais contexte bi bu ko laaj ñu tere ko. ñu tere ko si si le si le contexte est favorable on laisse les gens marcher. voilà tour de euh, marche tey bi loo ci loo ci sànni. d'abord maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp di leen nuyu yéen ñëpp ñu toog fii d'abord wax ne ne maa ngi leen di gërëm ci invitation bi mais invitation bi ni ma waroon demee demee wul nii mm-hmm. c'est pas la peine ma ci dem détail mm-hmm. ñu ngeen ma waxoon dañuy ñëw ci émission bi nii taxoon ma ñëw ñooñu ñëwuñu donc bu ngeen jàpp ko te ba pare dafa am benn façon boo xam ne bi nitu politique yi noonu la ñu xoolee média yi parce que média yi dafa am ñu far fii am ñu far fii mais ñi nga ma waxoon ne dañu war a ñëw ci débat bi nii te gisuma leen fii Serigne Mbaye Thiam loolu loolu loolu yaa koy réglé sa bopp mhm. mais dama ne ñii xewuma leen parce que ñun ñëpp ay nawle lañu mais boo invité ni ne ko film bi ngay projeté bu ñëwee da ngay film projeté wu mais teg naa loolu de côté. acca acca boog président mais ma yëgal ko Sénégal yi. c'est important waaw on avance. parce que jotaay bi mm-hmm. dinañu laaj lan laa fi ut. Mm-hmm. moo tax ma ma préciser loolu. bi premier problème bi ma la bëgg wax mooy da nga ne da nga wax ne marche bi lan moo ko waral. Mm-hmm. je pense que question bi dafa war a wax ne ndax fi ñu toll ci situation tey. sénégalais yi nekk ci fu nekk ci àdduna constaté ko te yéen ngeen wax ñu ko carte yi kenn jotu ko kenn jotu ko mu am carte bu ñu bind Papis Diaw ñu wane photo Ndella Madior carte Ndella Madior ñu wane du Wade benn ministre bi wax ne sur cent trente yi duñ du ñu def seen production jotuñu muy soixante-dix la ñuy tànn bàyyi trente sélection ñu dem ba nga xam ne fi ngay jëlee carte yi danga daan war ba suba ngoon doo ko fekk fen dangay ngay dem Sandaga ñu ne la marché Gossas demal marché Thiaroy marché Pombiteer fu nekk nga wër ko gisuloo ko loolu nga war a laaj ndëgam jar na marche wala pas non seulement da nga war a constater ne jar nga marche en tant qu'observateur de la vie nationale mais bu fekkee ne da ngay da nga bokk ci ñi nga xam ne dañu war a combattre pour l'expression du droit et l'expression des droits civiques et des droits politiques leen ci ni ngeen di jàppale nit ci musique di jàppale nit ci mbërëm di jàppale ci kenn ngeen jàppale les citoyens sénégalais sur cette démarche c'est une démarche citoyenne amul kenn kuy tax nag ci benn plateau di ko wërwërloo te awuloo ci dëgg nekkoo ci yoon nous n'avons par le droit nous qui sommes là de cautionner benn dëkk bu ñuy voter à cinq jours des élections ñu nekk 30 pour cent des jotuñu seen seen seen carte te carte yi disponible 60 pour cent gisuñu fu mu nekk te il faut nga dem ci lii lieu différent pour seeti ko muy un problème extrêmement fondamental ba pare ñu bëgg ci teg ne non seulement boo leen ko jotul bu fekkee ne am ngeen carte de maternité wala carte de vaccination wala ngeen am permis de conduire wala certificat de scolarité war ngeen mën a voter wala carte d'identité scolaire c'est inadmissible ci Sénégal bi ñu toll Sénégal bi Macky Sall jël en 2012 waxul woon ne Sénégal bi ngeen ma jox amul amul amul amul élection amul droit déedéet dafa woon ne dinaa fay salaire yi nee nañu amul gerte amul nangam mais dañ ko joxoon benn système électoral ki marche qui n'a pas coûté plus de quinze milliards moom mu jël ko ci cinquante deux milliards ñu sàcc xaalis bi séddoo ko bugguñu indi nag ci élection yoo xam ne ku yore paquetu suukar loolu dafa jar non seulement marche mais dafa jar journalistes yi les citoyens sénégalais les droits de l'homme les khalifes généraux et les responsables des associations musulmanes dañu war a wax ne nañu permettre Sénégalais yi ñu am seen carte voter ne pas tenir ce langage-là aux citoyens est un langage partisan. partisan. donc la marche avait son objet et devait se tenir. voilà merci président si tour euh, Ndella la même question sur la marche parce que moom mooy lu gën a récent ci wàllu euh, lu bees ci campagne bi. bon man euh, j'étais à Fatick. Mhm. et je me suis déplacée à Dakar ma ñëw Dakar. Mhm. pour participer si marché mhm. voilà donc j'étais favorable à cette marche pacifique. donc donc lancée par le président Abdoulaye Wade. parce que c'est pas du tout normal. qu'on ñu def ko si euh, carte et biométrique donc à cinq jours maintenant quatre jours pratiquement des des élections législatives du du 30 juillet ñu ne nous tous les cartes ne sont pas disponibles à 30 pour cent ah 30 pour cent jotuñu euh, seen carte du dëgg du yoon. waaw donc loolu moo tax man ma décidé quitter Fatick là où j'étais en tant que directrice de campagne de la convention citoyenne neneen à Dakar pour répondre à l'appel de. Abdoulaye Wade mu nekk loo xam ne dafa nekk une marche boo xam ne man dem ko cautionné maintenant marche bi amul man déplacé wu naa dem naa ba digg Sandaga y a pas eu de marche y a y avait la, la les forces de l'ordre partout donc mais amul marche amul benn débordement le président Abdoulaye Wade est venu après reculer delluwaat këram donc amul woon benn problème bu ma gis actuellement Mhm. donc j'étais venu pour participer à la marche mais la marche a été interdite par le préfet de marche boo encouragé la boo boo coché Moussa Tine la même question sur la marche lu bëggoon wax comme d'abord lu Doudou Wade mhm. en fait ñi euh, waxoon na ñoom la ñu invité fekk mu fekk ma leen mhm. si si si si ci débat bi échange naa d'ailleurs ak euh, ak Doudou Wade balaa maa ñëw mais ça je dois dire aussi que souvent responsabilité politiciens yi la mais bu joxee kàddu ne da ngay ñëw débat man su ma ñëw débat dañu naan Papis Diaw nga fay fekk ma xam ne Papis Diaw ma juge ndax damay dem wala du dem mhm. il faut aussi que ñu respecter cadre mhm. euh, bu ñu joxee débat tamit ñi nga xam ne ñoo war a débat effectivement ñoo débat dina doon ab dëkk du am marche mhm. kenn du protester waaye dama débattre tamit ñett yi moom mënut a nekk. mais man dama la bëggoon laaj euh, Moussa la ngay débattre par rapport à une personne wala da ngay débattre pour vendre tes idées et donner ta position. parce non, que non, moi pose problème pour si euh, <laughs> monde politique bi. du ma rek kii kii gisuma ko pourquoi par est-ce que c'est y a une cohérence yi si loolu. ak boobu oui façon y un principe. le principe mooy bu nit jógee ne day dem làmb bi bëre ji par exemple dañ naan que diw nga fay dajal di dem fekk fa keneen c'est aussi simple que ça. waxuma ne bëgg naa débattre ak diw wala bëgg maa débattre ak diw mais on m'a dit demandé kenn xamul fu ma nekkoon ne ma ndax bëgg nga debaat ma ne ak kan lañu daan ngeen ma diw ak diw ak diw j'ai dit dans ma wax donc su ma ñëwee bëgg naa fi fekk ñooñu parce que loolu lañ ma wax man bi may déplacé wu Papis di ñëw fekkee débat bi alors yaa ngi may posé actualité bi pour man effectivement actualité bi ñetti yëf la tey xëy na yenn sax nu ma waxoon a toll tollul noonu il lépp nekk ay problème de droit benn bi droit des citoyens ñu wote ñaareel bi pour la première fois Sénégal ma gis Cour suprême di génne un communiqué pour di wax ne telle personne Khalifa Sall en l'occurrence dafa def ay aveu devant un tribunal troisième chose ñu xëy tey ñu interdire marche ci biir dëkk bi xam nga fu ñuy interdire wadd marche man fekk romb daje naa fa ak Ablaye Wade man daje naa ak Ablaye Wade gis naa Ablaye Wade mu mu remonté Pétavin Pétavin Sandaga ñëw jàdd jël Pétavin bi di remonté problème da indi mais indiwul benn problème ci biir réew mi et li ngay li nga li ngeen doon posé sans problème je pense même pas que loolu mooy problème bi problème bi du est-ce que moment bii moment wu la wala du moment wu parce que wàllu campagne électorale moo gën a tee nekk moment fa manifestation que beneen moment boo mën di jël d'ailleurs sax dañuy alléger régime de d'organisation des manifestations et ça c'est la loi mais lii doon coow problème dëgg ci biir réew mi mooy ndax dañoo am benn parti ci biir réew mi boo xamante ne dafa bokkul ci république bi wala dafa am benn parti ci réew mi boo xamante ne c'est une république privilégiée pourquoi ñu mën a d'accord ñu dem tey ñu ne dañuy dem marché dem Colobane ñu dem fa marche fa ñu sànni ay lacrymogène mu dugg si ay kër jàmbur ñooñu toog bay toog di kaas na fii doot ñu kenn dootuñu nangu ñu def manifestation ñu ne waaw mun nañ ko def Colobane waaye kenn mënu ko def place de l'indépendance pourquoi chaque jour ñu manifeste buntu Maison Blanche keem la yem Union soviétique ci digg bi dañ doon marche bu digg digg digg fee mais où est le problème lan moo tax ñu bëgg ne fii dañ fi def manifestation fii dañ fi def manifestation ñu nekk place de l'Indépendance dañoo gën ñu nekk Colobane en quoi dans une république on doit dire nit am nañu droit fii ñu manifester waaye fii am kenn droit kenn amul droit manifester pourquoi parce que Carrefour la Colobane moo gën a doon Carrefour lan la parce que fi baadool la ñoo fi dëkk fii nguur gi moo fi dëkk non la république c'est la république amul benn parti espace ci république bi boo xamante ne mun na échapper à l' exercice d' une liberté démocratique am laa di ci dire que dafay def manifestation il a le droit def manifestation c' est quoi le problème moi je regarde pas parce que ay woon na ko démb tey d' na non c' est pas ça le problème il y a des principes yoo xamante ne kenn du ko changer c' la constitution moo décidé liberté de marche au Sénégal et li ñu wax ne liberté de marche au Sénégal dafa mel ni aussi c' nit bu liggéey weer ba dee am salaire am fay ko salaire am c' nit am na droit manifester nit am na droit j'ai vu ñu euh, ici veille Korité des jeunes de Grand Yoff yu xëy di manifester lu ñu doon lan la ñu doon affichage lan la ñu doon affiché Khalifa Sall kii di déwénati fanaan nañu ñaari fan si kaso bi y a pas de procès verbal yóbbuwuñu leen si kanam procureur yóbbuwuñu leen dara jaay doole. pourquoi parce que dem nañu wutu wutu grande mosquée di fa affiché pourquoi kenn du affiché wutu grande mosquée ku tax kenn du si biir bi la constitution moo permettre mais parce que ñii dem nañu kii et puis dara du ci mujj dara c'est-à-dire que on dañ lay yóbbu police nga toog fa ñaari weer ñaari fan quand it woo sa kër sa njaboot jaaxle ñu téye la foofu pendant tout ce temps xëy libéré la benn jour y' a aucune sorte forme de poursuite cest à dara topp ñu la dara PV ni rien ñu xëy après on te libère comme ça nga xëy dem mais dans quelle république on doit on va retrouver ñun bu ñuy xeex ñun le 23 juin ak ñëpp di wàcc fonctionnaire ak keneen ñëpp toog di xeex bu ñuy def ay assises nationales di ñuy def yenn revendication bu ñu koy porté bu ñuy def le code consensuel de 92 bu ñuy def tout ce qui s'est passé ici c'est dañoo ko jàppoon ne Sénégal wax nañu toll nañu a duggee dans foo xamante ne tey où est problème lan ban lan la ñu mën a seq tey ñun ñëpp on est des amis mais bu fekkante ne dañoo toog ba nga xam ne loo xamante ne c'est des principes de fonctionnement de l'État des principes de fonctionnement de la République mais on a plus d'équipe taxul ñu reyante. taxul ñu reyante wér de problème. voilà Moussa kon leer na euh, Ousmane Badiane ñu ngi lay nuyu si yegg si bi nga yegg si plateau bi euh, nga fi toog Benno Bokk Yaakaar euh, est-ce que mën nañu xam sa sa avis si tey li xew si wàllu marché bi amul finalement autorisé wuñ ko président Wade teew na mais ça s'est pas bien passé. jërëjëf Papis. Mhm. ci invitation bi. merci maa ngi jéglu nag tardé naa. Mhm. xat-xat bi la quoi. on comprend. am bànneex bu mag tasa fi ak samay xarit ñoom ñëpp. am mhm. sama mbub Doudou Wade Moussa Tine Ndéla mhm. c'est des grands acteurs politiques. Mhm. problème bi man ni ma ko gisee marche bi waruloon am. waruloon am parce que provocation la président Ablaye Wade moo gën a xam ñëpp. ne carte yi mu ne moom lay jëli pour jox ko nit ñi carte yooyu nekkul ministère de l' intérieur ministère de l' intérieur carte ya fa nekk mooy carte yi ñuy fabriqué yi ñuy confectionné kon boog bu fekkee ne damay def marche ministère de l' intérieur pour àgg foofu pour ñu toj ko jël carte yi fa nekk jox ko électeurs yi kooku sand mënul résister parce que même bu demoon jël carte yi kan kan la koy jox carte yi xanaa dañoo ci mbedd bi rek day dama jël ay jubi jox ko nit loolu loolu taxu koo jóg élection yi taxul jóg maître Wade te moom bi mu fi nekkee pendant son règne moom moo jëloon décision ak ministre de l' intérieur am ne périmètre bi kenn du fi marche parce que c' est un périmètre stratégique da weesu palais de la république xëy na mën nga bañ a assemblée nationale des ministres de l' intérieur palais boobu c' est un territoire stratégique. mais Moussa mu ngi mu ngi soulever waru am réciprocité parce que c' est les mais mais moom moo jëloon décision boobu te il l'a appliqué pendant ces douze ans kon boog bu mu ñëw tey parce que nekkatul au pouvoir mais li nga xam ne maa ko aay woon démb tey dañ ko war a def surtout moom waru koon sa xalaat parce que problème bi moo di président Wade n'est pas intéressé par ces élections là loolu taxu koo ñëw lu ko intéressé li ko intéressé moo di fexe ba créer une situation de tension une situation insurrectionnelle une situation de trouble population yi wàcc parce que xam nañ ne nit ñi dañoo am jafe-jafe ci carte yi mu doon un mécontentement populaire mu jaar fa pour violence am. mais est-ce que est-ce que est-ce que Sénégalais yi amuñu léegi une certaine maturité boo xamante ne kenn mënut leen embarquer si yoo xamante ne xëy na ah. gëmuñu ko wala ça les ça les concerne pas. amuñu ko mais dafa jé dafa jéem daf dafa doon tenté dafa doon tenté hmm. kuy jéem a déstabiliser lool ngay def. Hmm. mais vraiment man gisuma benn raison buñ mun a génne. mais à partir de marche boobu nit ñi topp ma mu ñu dem ministre de l'intérieur ñu jël carte yi jox ko ni kooku ça ne tient même pas la route carte yi les cartes sont dans les commissions administratives sont dans les commissions administratives la carte yi nekk yow dem dem ngeen faj def ngeen ay reportage vous avez là des milliers de cartes pourquoi lancé appel population yi pour ñu dem jëli carte yi dans les centres d'instruction dans les commissions administratives mais defoo ko ngi dans un contexte boo xam ne bii extrêmement tendu ngay damay def marche nit ñi topp ma mais kooku duñ ko ci bàyyi kooku bàyyi ko ci ce fait fi de la loi de la république la république aussi repose sur des principes et je crois que surtout nag ku yàlla defoon ko doon doon njiitu réew exercer ko du mu la neexee woon pendant les douze ans ñun dul rek dañ nañ ko ci ci ci ci ci régime am nga dikk nag bëgg a jàlgati yooyu yëpp ne parce que rek mag laa wala parce que maa tête de liste rek lu ma neex lay ko nangu je crois que moo tax le pouvoir a parfaitement raison d'interdire la marche bu buggee marché yaa a y' a des conditions de normal mun na marché bu bu jëloon yeneen itinéraire yoo xam ni du poser problème mais nag itinéraire bii mu jël c'est ciblé pour wane ne dama bëgg a déstabiliser nit ñi dama bëgg a créer une situation insurrectionnelle pour population bi jóg mer contre le président contre le président Macky ay confusion am et cetera ce ngi dégg mbokkam yi li ñuy wax ci rajo yi na fi jóg na dem parce que dafa lajj mais est-ce que ñoom ñoo ko teguñ ko fi dina ñu war si euh, ci ci loolu dañuy génn rek un temps soit euh, ci téléphone bi ànd si ak professeur Ousmane seen bu Wark professeur ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay déglu euh, xaw ma da ngay <coughs> am benn préoccupation personnelle par rapport au débat wala. ma boole ma boole si la question standard pour pour en en guise de de démarrage du débat. tu le choix professeur man daal li ma bëggoon d'abord maa ngi nuyu ñëpp parce que ñi yow xam naa leen. Mm-hmm. Euh, Doudou Wade, euh, Ousmane Badiane, euh, on a été à l'université, et puis Moussa, bon, il a été parmi les étudiants aussi qui ont secoué le campus pour la bonne cause, Moussa. C'est un, bon perturbateur, quoi. non, non, non, non, pour la bonne cause. On, voit maintenant. Et Mme Diouf, encore une avec M. Boub. Mais madame, son préoccupation, bon, 4 heures le mm-hmm. nous. je crois que Sénégalais, ils ont beaucoup de Parce que notre papy, Mm. avant Yaya Jammeh ñëw dëkk bu tuuti bii ñuy wax Gàmbi mm. daf doon organiser élection te kenn déggul dara nit ñi dañuy dem seen marché ñu organiser élection le même jour dara du yëngu Cap-Vert bi nga xam ne ñoo ko ëpp population plus de dix fois dañuy organiser élection dara du yëngu li lay war a sóoli ñun en tant que population suñu fit toogatul parce que chaque fois que mu am élection il faut que dëkk bi yëngu loolu suñu politiciens yi nga xam ne dañuy liggéey pour ñun man te maa ngi lay jaaramal parce que campagne bi métti na lool maa ngi lay masaw mais ñu dimbale ut ci solution ci loolu pour que ñu mun a continuer di wax démocratie sénégalaise il ne faut pas que nag ñu réeree mbir démocratie boo xam ne bi chaque fois que ay élection pare yëngu am kooku dina pas une démocratie majeure de il faut que ñu xam ko lenn man lenn lenn lay xalaat xëy na nag dama juum yu bees soo demee seet ko ak sa carte bu ancienne ban numéro nga fay de gis su fekkee gars yi juumuñ c'est le même numéro le deuxième numéro c'est le numéro de la CEDEAO mais sa carte bu màgget boo xam ne bi yaa ngi ko yore ba léegi nga xam ne numéro carte boobu moo jox numéro carte bu bees mais xanaa kay loolu nag war nañ mun a permettre nit ki su fekkee amuloo sa carte bu bees nga wotee ko foofu sàcc sàcc sàcc xeju fi li ma bëgg a wax leneen ci li ma yaakaar de man xaw ma ci li ma yaakaar. Mhm. carte bu bees bi je crois que soo ko gisul carte bale sa numéro c'est le même numéro war nga ko mën a euh, voter li ma ci tegul li ma ciy teg mooy ce qui s'est passé au ministère de l'intérieur vraiment on doit le regretter mais encore là Pape on est en train d'être mhm. nga xam ne lii c'est très sérieux nga recruter ay ay boy ñu toog trois mois xaw ma deux mois fayu leen mais boy yooyu suñ saboté yaa leen tooñ nañ cette question-là, elle est tellement importante que waroon nañ ko régler autrement plutôt que par la méthode qu'on a prise. élection euh, Sénégal yëpp a mais nga jël beneen méthode wala book su fekkee mënuloo ko gën nañ bàyyi ba ci kanam mais lu dangereux comme ay carte yoo xam moo lay permettre ngay dem élection mhm. nga di ci def li nga li nga def ba ba mu indi mu julli ñu ngi leen ay ñaan daal mhm. ñun tamit ñu ngi ñaan ba musiba bu mu am ci dëkk bi élection daal war nañ ko apaiser à partir de maintenant mhm. déjà bi gis naa un peu de violence dans le discours euh, politiciens yi vraiment ñun lañ fi nekkal mais ñu fàtte leen ne à part defar euh, dëkk bi ñun tamit suñu paix soxla nañ ko te élection vraiment ñu solal lool. alors euh, professeur balaa ma lay balaa ma lay bàyyi dama lay relancer ci euh, saisir bi ñuy saisir euh, conseil constitutionnel yow loolu noo ko noo ko gisee warul perturber. comment comment tu mhm. voilà c'est une question juridique. Mhm. am na ñoo xam ne ñii c'est des juristes waru fa jaar war na fa jaar mais man li ma jàpp mooy. su fekkee ne contentieux am na. su fekkee litige am na. war nañ mën a dem ci benn institution boo xam ne bii war nañu mën a wax naka lu ñuy régler problème bi su fekkee ne conseil constitutionnel nee na ancienne carte yi nga xam ne on a des élections avec ku ko yor te amuloo bu bees war nga ko mun a voter mais ça ça peut être une début solution et puis on sort des élections et on va autre chose vraiment xaw nañu tiit xaw nañu sonn aussi ma wax ko nag quand même euh, euh, politiciens yi xam ko. Mhm. voilà jër ngeen jëf te maa ngi leen ay masawu aussi ci campagne bi métti na. Mhm. gis naa liggéey ay liggéey yëpp pour Sénégal. Mhm. jërë ngeen jëf yéen ñëpp suma xarit ngeen maa ngi leen nuyu. jërëjëf professeur Ousmane seen bu Wark euh, ñu ñëwaat si plateau bi. Euh, Pape Samba Mboup yow naka ngay jàngatee euh, saisine bi ñu saisir euh, conseil constitutionnel bi est-ce que. nu mu jàngatee. li président sollicité conseil constitutionnel pour mu prononcer wu. Mm. sur facilitation boobu yow noo koy jàppee facilitation wala perturbation. man ni ma ko jàppee. Mm-hmm. il faut que ñu ñëw wate. Mm-hmm. ñu toog ba léegi ñuy war a randal élection. Mm-hmm. après avoir fait vingt un jours de campagne. difficulté yi am pour defar liste yi dem ñëw ay coono la élection dafa war a am léegi man d'accord ma si ay permis de conduire ay certificat de xaw ma lan ancienne carte yi numérisé yi yor ku joxlu sa carte nga dem wate bu dee nag pour ñu mën a watee ak loolu c'est un problème juridique je ne suis pas bu dee conseil constitutionnel moo ko mën a joxe autorisation mais c'est normal mu laaj ko ndax mun nañ ñu voter ak carte électo euh, les anciennes cartes d'identité mais je ne suis pas d'accord passeport je ne suis pas d'accord les permis parce que permis yu bari ay faux lañu ñu il faut dire la vérité permis yu bari am nañ ba man je sais am nañ fu ñuy jaar yenn saa pour am permis yu bari ay faux la ñu ah passeport bon à la rigueur c'est sécurisé mais daal li daal sama xel carte d'identité carte d'électeur yi ñu wote woon nañ ko jël ñi amul seen carte ni ñëw ak yooyu et puis c'est facile. boo ubbee tour tour bi la ñuy xool. tour bi ne fii moo ne fii kon yow la xanaa. kon an nga ci démarche présidentielle démarche. bu dee démarche boobu. Mhm. moo mën a tax ñu am palliatif. pour mën a wote le 30 à date échue. parce que problème juridique la man xaw ma ko je suis pas un juriste j'ai pas fait de droit. Mhm. mais bu dee moo moo war a jox euh, conseil constitutionnel moo war a jox ndigal pour ñu wote ak pièces yooyu moi je suis parce que il faut que ñu vote il faut que ñu vote on ne peut pas ne pas voter il c'est impensable que ñuy renvoyer les élections c'est pas possible les dés sont jetés alors il faut y aller mais est-ce que mënuñu koon éviter éviter situation bi est-ce qu'on pouvait pas l'éviter situation bi ñu nekk nii situation bi sorte d'urgence dernière uh-huh. minute si on avait une, personne compétente à la tête du ministère de l'intérieur. parce que c'est le ministère de l'intérieur c'est le c'est c'est Daouda Diallo xaw ma moi je connais même pas son nom mu tuddati. <laughs> xamoo sa ministre de l'intérieur. Ah, je je pense que hein, on aurait été dans le lendemain il démissionne. il a fait un échec. c'est lui qui des élections c'est lui c'est pas Macky Macky na ne doit même pas se mêler de ça daf ko war a kii rek dàq ko mu dem ñu seet ñu def c'est lui. le nœud du problème chez lui soit par incompétence soit aussi par escient am na ñoo xam ne je ne sais pas on est en politique hein il y a tellement de hein de de micmac de micmac mhm. alors alors président euh, démarche président bi yow noo koy noo koy analyser. merci dama bëgg d'abord euh, wax benn affaire bu gàtt. Mhm. mooy d'abord ci problème manifestation yi. Mhm. xam nga nit war na moytu ne. nga toog fii nga naan butéel bi muy sàngara ma ne la sàngara baaxul nga jóge fi ma toog fi naan ko nga bëgg ne ma yowaane woon a baaxul naan ko ngoon dinaa ko def déedéet bu fekkee ne ñoom non seulement dañu enfreindre woon texte boobu ñëw manifester ensuite manifestation place de l'indépendance yéen couvrir ngeen ko ñu bàyyi leen manifester nañu place de l'indépendance ñu manifester avenue de la ñu couvrir ko donc sur ce plan là y a pas lieu ensuite réalité bi am en 2017 après le mois de mai juin à deux reprises ay nit jóge nañu pour des régions de Guédiawaye diw dañ koy fal député wala duñ ko fal député investir nañ wala déet ñu ñëw jusqu'aux gris du palais mais la seule différence entre nous mooy bi ñu ñëw dañuy soloon ay casquettes marron beige c'est des gens de la paix yéen yéen ko couvrir may laaj sénégal yi est-ce que pour ñu investir Aliou Sall nit ñi am nañ droit jël seen oto ñëw ba grille du palais pour wax ne il faut nga investir ko par force ak ñun ñi nga xam ne dañu bëgg suñu carte électeur jotuñu ko muy benn bi ci des euh, mënuma d'accord ak professeur Sène mënuma d'accord ak professeur xamul tax président Macky Sall sax moom dafa jaay boppam mais dinaa ci ñëw ci kanam dañ ciy bàyyi ay voté ci ay permi de conduire ak ay yu ma xool problème électoral problème le problème électoral Badiane il a été totalement réglé depuis 92 lu ci am rek ay aménagement yu ndaw la ñuy indi sur le processus changé ko mais bu ñu waree dellu si ci permis de conduire wotewul ci list bi da ngay daje fukki Ablaye Diop ci benn bureau pour nga changer pour nga xam kan ak la il faut nga ne kii mooy yaayam kii mooy papaam amul ci permis de conduire amul ndey ndey papa passeport amu ko wonte noo leen di noo leen di xàjjale mën nga gis ñaari Doudou Wade seen papa ñoom ñaar ñëpp tudd Adama Wade nga xàjjale la seen yaay nga mën leen identifier mënul nekk donc problème bi mënul nekk c'est pas possible li fi nekk mooy il faut voter avec les cartes d'électeurs comme préciser par la loi bi ngeen demee ci président de la République ngeen rencontré ko ministre de l'intérieur mu nga fa bi mu wootee le dialogue yaa nga fa ñu poser question ministre de l'intérieur pose question DAF mu ne à trente jour des élections toutes les cartes seront produites et distribuées waaw ñu ne waa ji defu ko ñu bëgg comme li mu wax léegi nañuy seet non amul seet boo liiree la presse d'aujourd'hui boo ko liiree yépp jeu de poker poker menteur faux jeu de cartes toute la presse toute la presse sauf le soleil ñu ngi titrer la catastrophe de la distribution des cartes électorales mais quand fu ñu nekk walla yéen da ngeen génn ci dëkk bi moom nee na lii amul Praia nee na amul Guinée Bissau mu ne amul Gambie mais naka la mën a tolérer ñun ci suñu dëkk ñuy voter ak carte maternité wala carte nataal parce que fa lañ jëm ak moom alors maintenant ci saisine bi maa ngi fàttali nag que le 23 mai 2017 Omar bindoon na fii les élections peuvent-elles se tenir ou seront-elles truquées 27 mai 2017 lépp loo ci gis rek waxoon nañu ko fii mais on est des gens qui ne sont pas capables d'écoute dañu ñëw rek di wax dem maintenant qu'est-ce qu'il veut faire le président xam nga président lii la bind li mooy communiqué am gis nga kii boo ko xoolee nii xool yow mii mës a gis lettre présidence fii lañ lii fii lañ ko daan def fii wala fii fii du xam nga ko <laughs> mais boo gisee xam ne kii même la disposition dans la forme. maa maa koy xool maa ngi koy réagir laisse le terminer après di nga réagir donc dans la forme. Uh-huh. mais même ki ko bind. bu ñu nee ñoom ñoo ko def ñu ne président nee na mu ngi conformer sur l' article 72 pour saisir la constitution. mais article 112 amul lenn ak lii l' article de la constitution par de la promulgation bu fekkul woon ne sax ñun ñi attiré wuñu seen attention ne leen mais ñun dañuy jaaxle est ce que dañuy changer constitution foofu te yëguñu ko ngoonte duñu ko bindaat tey lañu soog a def dindi ko ne non dañuy juum 92 la comment peut-on gérer un pays comme ça de la présidence de la république comme ni ma ko waxoon il avait supprimé une institution qui avait été supprimée le président s'articule sur des dispositions constitutionnelles qui ne sont pas concernées parce ce qu'il désire. alors te président li mu soxla. dafa mel ni président li mu soxla rek xamul sax fan la koy seete li mu bind sax baaxul ba ñoom seen bopp nit ñi ñoo wax démb laaj leen ba ñu sonn ñu sokk ko rectifier tey mais dans quel Sénégal vous nous menez alors le conseil constitutionnel maintenant mais président daf ko saisir ci lan. bi mu koy jëkk saisir xam nga lu mu def daf ko ne maa ngi lay yónnee projet de révision constitution nga seetal ma ndëgam aw na yoon ak constitution bi bi xamuñu lettre la xamuñu décret la xamuñu arrêté la xamuñu lu loi la personne ne sait le président daal il s'est réveillé en pleine nuit jabar ji ne ko eh bindal conseil mu bind conseil constitutionnel mais fu ñu fan la jëm on va où mais il faut que ñu taxaw xam ne ñun amuñu responsabilité topp Macky Sall ci fi mu jëm le conseil constitutionnel ci ñi jàng droit ak ñi koy jàngale dafa amoon fu mu taxawoon moom ci rek fii lañ ma lem yemloo fii laa yem constitutionnalité de loi des accords internationaux loolu la am droit ak le conflit entre les juridictions et les institutions ci la ñu yokk maintenant mu biir te amoon na ci droit ci révision bi toog vertu ne le président de la République peut consulter le conseil pour ça oui waaw président daal bu ko jabar ji ne nii sax mu ne eh Marème nee na ma loo ci xalaat non kenn waxu ko loolu monsieur le président on ne demande pas de diir au concessionnaire si on votait avec des permis de conduire no on vous demande nga jël loi wala nga jël décret wala arrêté nga ne seetal ma arrêté bi wala décret bi ndax baax na wala déet mais dafa war a togg supp kànja dafa war il faut nga laaj conseil constitutionnel je suis désolé de dire que à ce niveau de responsabilité li ñu am mooy mu bëgg a defloo conseil constitutionnel li mu ko fi defoon et nous disons au conseil constitutionnel amu leen droit bu fekkee ne lii ñu jot lool la bu fekkee ne lii la amu leen droit à vous prononcer sur ça bi ci des conseil conseil kenn du ko permettre aussi muy def lu ko neex dañuy nekk ci réew mi yéen yéen a juge yéen nañu wax les cinq sage bien que Macky Sall moo leen di fay léeg-léeg ngeen daje léeg-léeg ngeen waxtaan léeg-léeg ngeen déggoo ci ay loo xam ne ñu xamuñu ko c'est vrai mais amu leen droit jël suñu justice ak suñu droit dëkk di ci toog. di ci toog on vous <coughs> demande vraiment de retourner à la sagesse. à la sagesse euh, Ndella euh, sur sur la même question on va faire des question standards comme ça ñu évoluer nous ensemble voilà. bon li xew actuellement tey te ñëpp xam ko dafa. dafa créer benn traumatisme général au Sénégal yeewu suba teel ñu ñuy wax que maintenant président dafa saisir conseil constitutionnel pour demander ndax am nañu droit ndax dinañ mën a euh, utiliser euh, permis de conduire passeport, euh, euh, passeport. Mmh. c'est un traumatisme waaw parce que le ministre de l'intérieur bi nga xam ne moom la sas pour mu organiser élection yi waroon na mën a waroon na éviter situation bi comme lu mu wax tout à l'heure tey si yeneen démocratie le ministre de l'intérieur devait même démissionner parce que li gàcce la à cinq jours des élections ñu ne maintenant waaw naka la ñuy demee élection 30 pour cent euh, du ñu jot seen carte électeur mais mais kan la ñuy yàpp Sénégal kan la ñuy yàpp Sénégal nous on va aller aux élections le 30 juillet avec nos cartes de euh, biométriques bi nga xam ne ñun ñoo ko jënd ñun ñoo ko fay muy cinquante milliards à cinq jours ñu ne waaw léegi ma soixante dix pour cent jot nañu léegi trente pour cent duñ leen ko mën a jox mais loolu loolu loolu loolu loolu c'est extrêmement traumatisant élection yi dañuy bëgg tenir euh, les élections le 30 avec nos cartes biométriques situation bi ñuy dund actuellement c'est une c'est une véritable honte et il faut reconnaître que le président de la République est entouré d'incompétents qui sont incapables d'organiser des élections. mais maintenant le vin est déjà tiré 30 pour cent yi duñu jot c'est il est formel. il est duñu jot alors yow en tant que politique lan lan ngay proposer est-ce que il faut s'appuyer sur euh, les alternatives wala à la limite reporter finalement écoutez écoutez moi je suis parce que c'est plus euh, possible pour pour respecter les 30 juillet boobu par rapport aux 30 pour cent. les 30 pour cent. Mm-hmm. dañu am seen carte. duñ ko am c'est formel c'est formel il a dit tout le monde l'a entendu d'accord loolu c'était une manière de dire à Wade de ne même pas marcher parce que écoute li ngay réclamer doo ko am d'accord maintenant moi en tant que femme politique en tant que politique en tant que directrice de campagne de la convention citoyenne neneen nga xam ne joxe nañu suñu caution participer nañu euh, campagne dañu fu ne et ça ñëpp xam nañ que campagne dafa cher mm. dafa métti effort physique fu démb on était à fatigue ñii dañuy tas ñii ñu ngi Fatick ñii ñu ngi Kaolack ñii ñu ngi Casamance ñii ñu ngi Kolda diaspora bi di yëngu oh bonjour on nous dit écoute il y a un semblant bon de de complot qui se prépare pour un éventuel report des élections parce que dina am lii ñuy proposé nii dina am ñoo xam ne dina si d'accord dina am ñoo xam ne duñ si d'accord. alors yow fan nga ci toll léegi man personnellement en mm-hmm. tout cas. Mm-hmm. j'ai sama position moi personnellement. Mm-hmm. j'ai pas envie d'aller aux élections avec 30 pour cent des personnes qui n'ont pas leur carte. ça signifie quoi exactement lu muy signifier loolu. on décale on décale on décale. on décale après les législatives après les les on a le temps de distribuer les cartes ñu door ko mu daanu soit octobre ou bien novembre ou bien décembre pour man solution boobu la si gis. contre maintenant le couplage de de de l'élection des élections législatives et la présidentielle de 2019 hors de question ñu pousse ko ba 2019 ce que bon. xam nañu que ñu bëri loolu la ñuy xalaat si suuf quoi. donc euh, si ñëpp suñu d' accord que dañuy reporter mais bon ça fait ça fait l' occasion nañ ko randal ba 2019 jéem ko couplé donc un un léger décalage après les législatives après les l'hivernage je pense que c'est beaucoup plus raisonnable que parce que sinon ñuy séddale nañu li ñuy séddale ba pare. ba pare séddale nañu li ñuy séddale ba pare. métti na participer si élection peut-être ñun ñëpp dem nañu campagne dépensé nañu beaucoup de millions. beaucoup de millions parce que campagne dafa métti c'est des carburants c'est des hébergements c'est votre choix hein? mais c'est notre ah, le choix des listes c'est l'investissement ça de euh, l'argent maintenant c'est pas à cinq jours qu'on va nous dire écoute euh, bon léegi mën ngeen voter avec les cartes euh, numériques et tout la personne a la possibilité de voter deux fois mais est-ce possible la seule femme tête de liste mais on a y a eu bourrage d'urnes dénoncé par Benno Bokk Yaakaar moom xam na si dara il y a eu bourrage d'urnes qui peut ose dire qu'il n'y a pas eu bourrage d'urnes en 2012 il va pas le dire parce que ñoom seen bopp ñoo ñoo déposé benn recours pour dire qu'il y avait bourrage d'urnes dans la région de Diourbel moi en tant que euh, tête de liste de Pétaw j'ai reçu la notification l'ampliation Benno Bokk Yaakaar a dénoncé un bourrage d'urnes en 2012 et il y a eu bourrage d'urnes dafa am ay zones yoo xam ne y eu par exemple deux cents électeurs après y a eu mille et quelques personnes inscrites parce que yéen da ngeen naagu woon les journalistes en 2012 da ngeen naagu woon foog nga ne que élection léegi mun na mun na passer démocratiquement mais ils font que remplir les urnes ils l'ont fait en 2012 donc ils préparent pour le faire en et il va pas me contredire parce que j'ai tout le courrier ñoom seen bopp ñoo ko wax tout est préparé pour un vote un vol un nul dop électoral séddale comme ñu leen neex jël ba jël nu mu tase plus forest comme ils ont fait en 2012 donc tout ça il faut être raisonnable un léger décalage octobre novembre décembre après les après l'hivernage ñu doog ko ba daanu. éviter un couplage avec la présidentielle. sinon mhm. une présidentielle anticipée wax bi jeex. puisqu'ils sont incapables d'organiser des élections législatives waa ci daanoo si gën a Quand on organise une, une élection présidentielle, anticiper et on point barre. Et alors dama bëggoon greffer tuuti ci question bi euh, rapport yi euh, institution yi di am ak ak les sénégalais xam nga on parlait début campagne avant conseil conseil constitutionnel di dugg en en jeu on parlait de des rapports entre l'Assemblée nationale et les, et les populations euh, gis nañu ci 2012 également candidature Wade sa a posé problème ñenn ñi ne conseil constitutionnel dafi nekkal président tey aujourd'hui nooy nooy nooy expliquer un peu en tant que juriste rapport de de confiance bi war a am entre les populations ak les institutions dafa mel dafay dégradé wu et personne ne n'a la confiance totale quoi par rapport aux institutions alors Papis li ma bëggoon a wax xam nga tey bu fekkee da nga nekk borom kër nga xam ne sa salaire trente mille francs la ngay xëy di génne par mille deux cent francs xam nga ne balaa weer bi di jeex balaa weer bi di jeex xam nga ne sa salaire dina jeex lu dëgg mm-hmm. bu fekkee ne dañ lay jox juróomi dërëm par bés di nga xam balaa weer bi di jee ñaata ngay jot bu fekkee da nga nekk ministère de ministère de l'intérieur nga am ay machines yuy liggéey di produire ay cartes nga xam ñaata carte ngay produire par jour xam na élection le 30 juillet la yaa ko pousse sax ba le 30 juillet ñaari yoon nga pousse élection de fait xam nga le 30 juillet bii <coughs> bésu élection la ngay defar ay cartes maanaam ngay defar par exemple 1000 cartes 2000 10 000 cartes nga xam ñaata fan moo la dese xam nga ndax su élection yi di jot cartes yi dina pare wala du pare analyse très simple cest à amul xaar yàlla ku ne xam na état loolu lay jëriñ tu es dans la planification tu as des yooyu fay tu une direction directeur général bi dafa élection tu as des yoo xamante ne depuis xaw ma combien d'années suñu expertise tey électorale sous région bi yëpp utiliser nañ ko fa y compris même dans nos parti politique politiques ñu bëri dañ leen di solliciter tey ñuy dem di joxe seen xam-xam si wàllu élection donc xam nañu naka la ñuy organiser élection président de la nekkoon na ministre de l' intérieur et pour votre information Ousmane c' est le mm-hmm. président ministre de l' intérieur moo tere manifestation sur la place de l' indépendance je donne aussi cette information la moo tax li ngeen di wax noonu di ko bàkkoo yenn saa yi aussi seen affaire la ok donc xamoon nañu ne du ñu pare wala dinañu paxe nombre de cartes yi mm-hmm. léegi ñu xaar cinq jours vous vous rendez compte là cinq jours juróomi fan nga woo ma yow léegi carte yi dootul pare ensuite bon yow nga posé ma question ne maintenant lan la ñu def mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse c'est qui est le responsable la question la ma ko war a posé y a combien de mois fii ñi fi toog yëpp ñun ñëpp fan la ñu miinante concertation autour du ministre de l'intérieur organisation élection depuis général Niang avant général Niang Abdou Diouf tout la tradition électorale sénégalaise mooy concertation autour du ministère de l'intérieur ñu trouver ay consensus de avancé yenn saa yi def ay point de rupture éclaté ñu woowu universitaires yi ñu defal ñu ay loi proposée ONEL noonu lañ ko amee CNRA noonu lañ ko amee HCCT la woon et cetera et cetera c'est comme ça qu'on a eu noonu mais bii yoon nga tëju yow waxu kenn nga ne doo wax kenn def lépp forcé nga toog tey la lan mardi altine nga woo ma ne ma non non alti élection yi dimanche tey altine wax naa ne la tey carte yi dootul pare loo bëgg ma wax la te ma da nga yàpp Sénégalais yi c'est ça la vérité c'est ça qu'on ne dit pas dañoo yàpp Sénégalais yi et au moins ces choses-là la décence mooy au moins le ministre de l'intérieur ne man maa ko waxoon mënu ma ko je démissionne et en ce moment-là au moins tu es légitime à parler mais maa ko def pendant tout ce temps-là ñëpp attiré nañ sa attention effectivement le PDS génn nañ fi Omar Sarr génn nañ fi benn article ñun ñëpp ñu xëy commenté ko mais Gradec Babacar Fall société civile ils ont sorti aussi la même chose wax ko def un calcul mathématique wax la ne du ngeen pare ñëpp ne non di ngeen nañu pare cinq jours nga xëy c'est-à-dire que c'est même pas une élégance républicaine parce que élégance républicaine mooy ministre de l'intérieur annoncé ko moom mais c'est le président de la République la si kanam moo annoncé nañu ne il y a un échec sur cette affaire-là maintenant léegi ñun lan ci xalaat donc on n'a rien amul luñ ci xalaat ñun ay citoyens sénégalais lañu ñuy fay impôt man ak yow boo xoolee sa bulletin de salaire dee bëgg a parce que pourquoi da fay ay impôts pourquoi parce que dañ si war a jël cinquante milliards defal la ay carte électeur celui-là ki jël say cinquante milliards yow yoo cotisé def ko ci tontine bi ne day defar carte électeur bu toogee ba cinq jours ne la mënul def ay électi moom mooy démissionné c'est comme ça qu'on fait loolu mooy la décence en république mais def naa ko waxoon naa leen ko mënul nekk et puis jeex na léegi bal baa ngi noonu C'est la vérité, c'est pas un gros mot. Délinquant mooy simplement tu violes la loi. C'est de la délinquance électorale. notre code là moo ñu wax nan la ñuy voté moo ñu wax kenn comment la ñuy voté mën nañu wax naka la ñuy def ba euh, ba ba voté ci biir réew mais tout ça on le met maintenant de côté maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va aller chercher une couverture du conseil constitutionnel. rapport justement xam ne moo fi am moom la ñu defoon aussi def référendum on se lève un beau nga xëy na avis bii aussi non seulement tu te trompes c'est ça la honte aussi dans la République comment nous au Sénégal dëkk bi ñu xam ñun bi ñu xam ña xamante ne foo dem ñu seenu exemple en terme de logistique en termes de technique nu ñu mel li fi am tey si ay borom xam-xam ay borom kàngam ay ñuy génn communiqué du président de la République dégg lu baax lu ma la wax et on se trompe sur un article de la Constitution qui ne fait pas 110 articles cest dire waa ji dem jël si sa il n'a même pas pris le temps ubbi constitution bi xam ban article visé même pas ça Pape Samba tu été euh, à la présidence xam nga au moins y a une rigueur bu ndaw boo xamante ne bala dara di génn président ñett ni dañ ko liiraat sax ñu jox keneen mu liir liiraat mais on sort un communiqué président de la notre première institution il y une faute sur quoi la charte fondamentale de notre pays c'est-à-dire le pays dans la bi commenté ko mën doo

les seuls gagnants euh, c'est les Ousmane mais a dama poser benn question la dernière chose mooy li ma wax maintenant sur la même question mhm. c'est en fait on nous fait exactement la même chose il une disposition générale dans l'article 92 qui dit que président de la mën na demander avis conseil constitutionnel mën na ko demander avis mais tous les jours président demande avis cour suprême demande avis conseil constitutionnel ñii nekkoon nañ ci biir nguur gi c'est dans la pratique normale des choses conseil d'État temps Abdou Diouf dafa amoon ay réunion même hebdomadaire yu ñu doon def mais avis boobu kan lañ ko mos a publier maintenant alors léegi qu'est-ce qu'on dañuy dem demander conseil constitutionnel mu joxe avis sur la chose électorale boo xamante ne la loi l'a déjà réglementée nga xëy suba dem na conseil léegi bu la joxee avis da léegi avis bi léegi tam décision la dafa imposé à nous c'est ça qu'on va faire encore encore demander mu joxe avis ñu ne comme nee joxe na avis léegi président daal dafay respecté. à défaut de cela Moussa on on devrait quoi. à défaut de ça c'est-à-dire loolu. c'est mm. le ministre leen moo war a am décence su taxaw si sa kanam yow. Mm-hmm. ñëw wuyu la yow journaliste bi c'est pas moi le fautif. maintenant s'il démissionne non supposons qu'il démissionne tu proposes quoi. non c'est pas ah, ah. le fait c'est pas ça c'est-à-dire le mm. fait mooy bu leen dem. waxi citoyen bi ñu joxul kartam comme man mm. ne ko maintenant comme En dehors de cela, il y a la faute du ministre de l'Intérieur qui doit démissionner. Mais on est face à un blocage, à une situation, à un inconfort. en tant que politique, à défaut de cela, tu proposes quoi, je veux dire. loolu mooy pièce bi ñuy teg aujourd'hui opposition c'est-à-dire c'est le fait accompli bu ñuy bëgg a teg loolu laa d'accordul. C'est-à-dire que vous nous mettez dos au mur pour ñu assumer une responsabilité boo xam ne c' est pas notre responsabilité c' est ça loolu le problème c' est le ministre de l' intérieur mooy am décence dem taxaw assemblée nationale wala mu def conférence de presse woo nit ñi moom wax ñu moom moo ko def wax ñu lii mooy suñu solution ñun ñu apprécier la solution mais mënuloo def li nga def milliards c' pas beaucoup peu d' argent est ce que dégg nga waxuma ne cinquante waxuma milliards de francs CFA ñi nga xam ne amuñu dara tey su tawee dëkk bi amaat mbënd ñun laa wax ñoo jël suñu cinquante milliards dañuy def élection jusqu'à présent aujourd'hui defuñu ah, amu fi te bañ koy def li fi nekkoon Macky Sall la ko fi bàyyi woon les gens ont dit on va forcer on va le faire on a dit mën a nekk ñu si day day mën a nekk ñu ñëw ba fii ñu ñu def ko alors léegi uh-huh. on va se lever un beau jour ñu dem wuti benn arbitrage conseil constitutionnel le président va demander un avis au conseil constitutionnel avis conseil constitutionnel mu joxe ko uh-huh. ensuite on va dire oui comme les conseils constitutionnels nee na on va se kii on va violer tous la loi donc c'est le conseil constitutionnel va autoriser ñu violer la loi électorale pour organiser des des élections à la même euh, bi. saisine conseil constitutionnel par le président Macky Sall dama koy rafetlu li tax ma koy rafetlu moo di ça prouve que c'est un véritable républicain en tant que président de la République moom la loi jox prérogative pour que tous les citoyens qui doivent voter puissent voter sans exception, qu'ils puissent exprimer ce droit la C'est ça que dit la Constitution. Maintenant, une situation est là. Cette situation, nous tous, nous sommes responsables ici, tous les acteurs politiques. bi ñu amee 47 listes yi mais ñëpp a comment le Sénégal peut-il avoir 47 listes mais <coughs> le Sénégal a aujourd'hui 285 partis politiques légalement constitués du temps de Senghor pendant la période de, de, de, de euh, démocratie limitée il y avait quatre partis président Abdou Diouf ñëw fi pendant vingt ans il y avait une trentaine de partis président Ablaye Wade ñëw partis yi yéeg cent quarante trois partis cent quarante trois partis dans le fichier du ministère de l'intérieur on peut le vérifier parce bu ci nekk am nga date bu ñu la créé ak fañ la créé le fichier est là Moussa il il le sait très bien il a vu ce fichier là ñun ñun ñëpp. gis gis nañu fichier bi. donc récent c'est plus grave douze partis ont été légalisés parce que le même jour à la même date. donc ah c'est lui qui créait les partis là de façon artificielle. qui président Abdoulaye ci la parti bi ñuy commencé yéeg. te la loi def di avant les partis seuls pouvaient concourir à l'expression des suffrages c'est ça après 92 ñu ajouté ci les coalitions les partis et les coalitions les coalitions n'ont pas toujours existé après ñu yokk ci les candidats indépendants mais pour certaines élections présidentielles ak législatives après bi ñu defee la revue du code ñu ne à toute type d'élection donc dañoo ubbi mais tey Sénégal on pouvait avoir 200 listes ah je je vous assure que kenn mënu alors président euh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi développé ci pléthore. donc euh, voilà euh, mais pour pour vous dire mais mais ma question qui. vient mooy. au début. l'État s'était engagé à respecter la distribution des cartes à date. Voilà, maintenant pourquoi poser le problème mu pléthore bi c'est pour en venir là donc aujourd'hui mhm. donc li tax situation bi am mhm. avec les cartes ak président Macky Sall jël décision boobu bi ñuy def la revue di code électoral man maa nga fa woon c'était au mois de juin parce que xam nga les le le référendum c'était le 20 mai ñu commencé la revue du code électoral juin juillet août mu jeex septembre ñu voté loi bi par l'Assemblée nationale le 4 octobre ñu commencé ubbi liste yi Macky Sall et son épouse ñoo njëkk bindu le 4 octobre biñ bindoo génne nañ carte bi wane ko mais biñ bindee maintenant du 4 octobre ba premier ba ba ba ba mois de décembre pendant ces trois mois la c' était la fas test pour forme les opérateurs yi manipuler l'outil informatique parce que c' est très compliqué c' est pas simplement une une une une une une réforme administrative il fallait les initier à ça yéen ñëpp gis ngeen les conditions même dañ ko defee les locaux yi. il faut un certain nombre même d'une atmosphère ay climatisation ay les jeux de lumière tout ça il fallait former parce que nekkoon da nga jël sa photo comme ça rek sinon la capture des éléments biométriques du baax on les a formés pratiquement de jusqu'au mois de décembre donc on peut dire que donc la révision normalement a commencé à janvier janvier février mars avril mai juin muy six mois au lieu de 4 millions yu ñu doon ut au début on se retrouve avec 6 mois c'est bien ça c'est 6 millions en mois Alors que quand on faisait la réforme en 2004, cette réforme avait objectif 3 millions de Bougon, ça a pris 18 mois. Parce qu'on a prolongé 4 ou 5 fois cette période d'inscription. Nous avons fait total entre 2004 et la première carte pour les élections de 2007, 18 mois. Donc ici, en 6 mois, nous avons 6 millions d'inscrits. Mais inscrits, ça ne veut pas dire que c'est en même temps les cartes qui sortent dans notre là. mais c'est la révision qui précède on ne peut pas def lu ñu lu ñu réviser rek génne carte non non c'est pas comme ça il y a une période où on fait la révision révision mooy man ma demande parce que yow nga demande da nga ci bëgg a fiche da nga da nga bëgg a bind c'est c'est des demandes parce que après révision bi il y a une phase obligatoire de publication provisoire des listes pour ku nekk ñëw seet est-ce que liste yi c'est bien publié est-ce que amul bi ci information électorale yi bu amee nga def recours au président du du tribunal mu jox la un acte pour dire que donc y a une erreur on doit se ñu def consolidation du fichier normalement c'est à partir de ce ci la war a tirer parce que maintenant y a toutes les informations électorales pour tirer l'ensemble des cartes mais délai boobu nag ni mu gàttee en six mois on s'est retrouvé avec six millions qu'est-ce qu'il faut faire c'est pourquoi moi je dis que ñun ñëpp nous sommes tous responsables. c'est pas cinq jours. non six Maintenant, il y a 6 millions de cartes. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est pourquoi, quand l'ONG 3D a fait la simulation, mais c'était extraordinaire, eux, ils n'ont pas, pas, palabré. Hein. Ils sont allés dans une salle. Wolof président. ONG 3D, nous def expérience bu am solo. ñun teg seen bët Parce que votre pratique là d'abord. Nous avons une salle de classe, nous avons les bulletins. Les bulletins, les bulletins normaux. Nous avons fait calcul. ci pour bureau de vote boo xam ne rek 300 la te xam nga ñun suñu bureau de vote 600 la parce que 900 la woon ñu wàññi ko 600 ñoom ñu ne bu ñu jëlee rek 300 électeurs yuy watee lum néew néew néew 4 minutes seulement mooy amul perturbation amul dara cela va faire vingt heures de vote dans la journée 20 heures de vote mais 20 heures de vote ci ñun ça veut dire 2 jours de vote parce que quand le bu bu bu scrutin bi war a arrêté dix huit heures ça fait dix heures peut-être préfet mën na yokk yokk ñaari deux heures mu arrêté vingt heures mais donc bu ñu tuwee dans une situation comme ça qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que dañuy yokk temps de vote bi mais code bi permettre ko parce que là on a dit que le scrutin dure un seul jour et un dimanche est-ce que dañuy wote pour ñii wote ñeneen ñi bañ a parce que bu fekkee dañuy bàyyi ku nekk rek nga jël c'est loolu mooy tax bi ñu c'est-à-dire boo comme noonu la demee te dañ bëgg wàññi temps de vote bi ñu jël quatre simplement cinq bulletins pour réduire le temps de vote. Ouais, un compromis. Le, le, non, le, le secret mais loolu mais on a dépassé ça un peu sur le cinq. xam nga kooku c'était une difficulté mais déjà mm. réglé nañ ko. maintenant problème bi moom mm. mooy les cartes. Mm. parce que pour nga

parce que vote bi il faut que ñëpp mën a jël seen carte wote mais comment parce que ñëpp jëluñu seen carte te on est cette situation là quest que faire alors non non man je ne pas pour le renvoi je ne pas pour le renvoi nous ne sommes pas pour le renvoi c'est pourquoi président Macky jël initiative bi conseil constitutionnel néewu ko yaay décider comment on va voter non non non non non mais sax mënu mënu mënul changer alors président mu saisir leen c'était mhm. c'est dans son droit Est-ce qu'il y a la possibilité maintenant ñu voter à partir de ces pièces-là pour que tout le monde puisse voter mm-hmm. mais le conseil moom mooy décidé wu mun na ne c'est impossible. Mm-hmm. rejeté ko mun na ne peut-être bu ñu ci jël benn wala ñaar mm-hmm. comme ni ko. balaa muy balaa waxee jël carte sol d'identité. et cetera ñu ñu ñu voté mais liñ bëgg moo di. nit ñi mun a voté bu fekkee ne alors président euh, juste euh, pas mu xaw a yàgg. sur la question de la démission éventuelle. Euh, du du du du ministre de l'intérieur yow loo ci xalaat. am na ñu bëri ñu ci xalaat moo di le ministère n'est pas responsable de cette situation. le ministère n'est pas responsable le ministère mënuñ koo démissionner loo. ñun ñii ñooy responsable nu les acteurs. et le référendum l'avait posé. après foog ñu waxtaan pour la rationalisation et la modernisation des partis mais tant que ce système là va continuer demain on va se retrouver avec 200 listes te kenn mënu ci dara donc c'est pas le ministère mais le système tel qu'il a fonctionné avec une floraison des cartes situation absolument impossible à gérer ñun nañ ko assumer accepter def ay concessions pour permettre à ceux qui sont tous ceux qui sont inscrits mun a voter ensuite mun naa ku gagner nag bu fekkee ne yow buggoo élection am buggoo vote am dañ ci bugg a jaar rek pour créer situation boo xam ne bii trouble lay doon nit ñi mel génn jàpp président bi sànni ko ci biti comme ni ñu ko waxee <laughs> pour nga ñëw mais ça aussi c'est pas c'est pas parce que devant problème de fond c'est ça te ñoom ñemewuñ ko wax dañuy tourner autour du problème euh, euh, euh, mais l'erreur humaine ñi ko ñi ko nañ ko <laughs> voilà Pape Samba report report ou pas <coughs> gis nga d' abord. Mhm. damay euh, dugg si sujet bu Ablaye Badiane. Ousmane Ousmane euh, Badiane fàttewu ma yow itam dama am benn xarit bu tudd Ablaye Badiane. <laughs> ma ne sur quoi ils se sont basés. pour tabler à 4 millions. le nombre éventuel d' électeurs. sur quoi ils se sont basés la boo xam. après dinañ mhm. ñu ne. on va faire million millions. parce qu'on aura 4 millions d' léegi ñu déborder ils ont 2 millions de plus. mu ngi mel ni 2 millions dañ leen ragal tuuti quoi. il y je pense que quelque part 2 millions yi. bëgguñu ñu ñu wote. parce que dugalu ñu leen ci film bi. ma recentré waat peut euh, la question donc yow d'accord nga xëy na 30 pour cent des populations bañ a voté ji. mais gêne pas dañu war a voté. parce que pour la seule condition. pour le report man lu tax ma bañ report bi. Mm. mooy tout simplement les efforts que nous avons faits pour cette. amatuñu dara lu ñu amoon yëpp dugal nañu si campagne bi mënatuma def beneen campagne man bu ko man damay jeter l'éponge <laughs> ah ma xaalis maa ngi dëbal dëbal def lii tay la fii def nii doy na nag. il faut pas qu'on me ruine mais mais par par ricochet gars yi ñu ne. Hmm? yaa ngi tànn la mais au président Macky Sall xëy na financièrement amatuloo xaalis. non nga bëgg a jege jege président Macky Sall yan xam nga da ngeen may rek mënoon naa bañ a ñëw sax. Mhm. parce que bu nawet pas dit ça. j'ai pas dit ça comme ça. Ouais. heureusement. heureusement ah, je suis là tu as tu as tu as le la latitude de restituer pas venu moi. Mhm. dire ça. Mhm. journaliste bi daf ma poser question. Mhm. daf ma poser bu président wooyee. est-ce que di nga dem. ma ne ko su ma wooyee pour contribuer à la construction du pays je je suis un un, un Sénégalais j'aime mon pays président ku mënti woo ne la. yaakaar naa ne yow mën nga ma jàppale si benn benn point pour ma defar réew mi boo bëggee si réew mais da ngay d'accord c'est un devoir républicain mais ma ajouté ne je ne rentre pas dans l'APR je garde mon entité parce que Ablaye wat moom si boppam moom maître dugg na ñaari yoon si gouvernement la Diouf am na ay situation moment yoo xam ne Abdou Diouf wax na ko mu ñëw bu élection jotee dafa jënd dem def élection am. def na ko deux fois et tey chaque fois bu muy dem may ànd ak moom. dans son cabinet. sa maître tam def na benn sortie yi. Hmm? wax ne nañ ko bàyyi. ñi pardon sa maître Abdoulaye Wade. Ah. tamit ne nañ ko bàyyi ñi dem nañ dem bàyyi ko ni ñu koy tudd. ñun demuñu dañu dàq yéen euh, ak euh, ak. ma ne ñun demuñu mais ñun demuñu. Hmm. góor gi mu ne ngeen ngeen bàyyi ko quoi ngeen bàyyi ko vraiment ngeen bàyyi ko communiqué bu ñu <laughs> dàq. jot ngeen communiqué bi. Hmm. kon ñun demuñu ñun dañu ñu dàq. secrétaire national kii ma nga fa woon ñoo réunir waaw xëy na nekkoo fa woon ñoo réunir mais on nous a à partir de ce jour pour indiscipline ah bu ñu la renvoyé nooy def ñun wuñu ko la preuve ko ñun on est vadis moo nekk suñu xol te ñun xam nañ ne ndax son cœur am nañ fa place mais dafa am ñu mel nii ñoom Doudou Wade ak ñoom Oumar Sarr ñooñu ñooñu jaxase ak Ablaye bi situation bi am nañu wax de dëgg. waaw dama bëgg pour. voilà nga bañ a personnaliser. non non non kii moom ma wax. waaw non damay wax la vérité. man man nga ma bañ a. yéen mii yéen ñu booleeg Ablaye Wade. te gën leen ñu bëgg Ablaye Wade. ay mbokkam ngeen mais bëggu leen ko. waaw fais attention. encore mu nekk yëpp yéen ko ko teg. yaa yaa ngi yaa ngi. dawuma fenn je je prends à témoin les Sénégalais. oui que il y a des dérapages et le risque. y a pas de dérapage. Euh, ça risque d'aller loin. on va on va recentrer. excusez-moi. ça risque d'aller très loin. voilà c'est bon c'est bon excuse-moi il n'y a pas de frontière entre nous voilà voilà voilà à ma manière à ma façon Pape Samba euh, euh, s'il vous plaît on va on va aller à l'essentiel euh, euh, président ah. ñu recentrer tu, tu, tu vous êtes excusé. voilà donc c'est bien c'est maintenant dama bëgg wax ne dama bëgg ay yu yu. très rapidement bañ ñu créer équivoque très rapidement. ok allez-y. xam nga Abdoulaye c'est notre maître. ku nekk am na droit wax ko te moom bu ko waxee am na droit wax ko mais c'est comprendre le maître. le maître ne pas allé dire boo ma wooyee mu ñëw dafa xaar ñu woo ko mu ñëw mooy différence bi je tourne cette page. dañ ma posé question ah déedéet man je question. je je est-ce que bu ñu la wooyee di nga dem attends je vais boo tëjee tu tu da ngay conclure dañ ma posé question léegi loolu leer na. buñ ma ko posé euh, mu continuer maintenant. tu as conclu parce que Euh, Pape Samba vous plaît Pape a une frontière bu mu bu mu fii. <laughs> passé naa ko. <laughs> non non président s'il vous plaît <laughs> non euh, léegi bàyyi président mu mu mu mu tëri. non non non non je je ok je reviens alors dama bëgg ñu régler quelques petits problèmes ñu bañ a juum wala regarder certains problèmes dama bëgg euh, Ousmane dafa loo comprendre ma nga ne Ablaye da mu ngi bàyyi woon parti si ñaata 143. ci son magistère. waaw 143 parti la am ci magistère am. mooy créé waaw. très bien donc moom 143 parti la fi bàyyi ok dafa ma jaaxal ko mais comme confirmé ko benn léegi ñaata lañu. 285. très bien ngoonte bu ko xas si dara bu fekkee dañu def arithmétique dafa mel ni ngoonte bon Macky Sall moo pare moo moo créé 142 partis en sept ans. non 99 partis. non attends. moo tax mën xam nga traumatisme bi kii doon wax dafa naa moo la daal <laughs> tu me dis deux cent quatre-vingt-cinq partis actuels nga ne Ablaye Wade cent quarante-trois la fi bàyyi je demande ça à Adama ma ma petite toute petite là à à bébé Ndeye mu ne ma il est cent quarante-deux wala après boo seetee chiffres yi après ñu dellu si waat mais dama koy balayee donc du luñ koy reprocher bi ci des euh, c'est vrai code bi moo indi coalition de en 92. Mais avant 92, l'article concernant euh, l'électorat et la participation aux élections parlait de parti politique et de groupements de partis politique Le fait de l'avoir inséré dans notre constitution est une bonne chose. moo tax nga nekk ci collation kii nekk kii nekk mënuñu ko bañ bu ñu ko critiquer parce que ci li ñuy nekk ñun ñëpp am na ñoo xam ne yenn saa yi ñu génn ci. ñun génnoon nañ ci coalition en en en 2012 ñu ngi waat ci coalition mais am na ñoo xam ne ñu parti politique yoo xam ne mësuñu génn ci coalition a quoi sert un parti politique bu fekkee ne mënul dem élection c'est cette question que nous devons poser nous qui appartenons à à des parti depuis cinquante ans c'est ça la question qu'il faut oser se poser soi-même je mets ça de côté bi ci des Moussa il ne reste pas cinq jours xam nga la conseil conseil n'a pas encore répondu il alors léegi da nga wax ne que loolu mënul nekk parce que code bi permettre ko te ñun dañ la man dama la jàpp yoo xam nga ne dama la jàpp ci les hommes des questions électorales mais code bi am na lu mu prévoir tey Macky Sall moo wax ne fii ci li mu wax mu ne sénégalais yi nga xam ne am nañu fukki ak juróom-ñett yu matt am seen droit civique ak seen droit politique ay électeurs lañu moom nga wax léegi ci tubaab. c' est vrai mais yemul foofu de da nga ko àggaliwul dans les conditions déterminées par la loi la loi bi nag moo ne pour nga voter il faut nga am carte d' électeur mu ne la boo duggee bi ko jiitu dañuy jëkk tere ñi nga xam ne dañuy yor arme ñu ne ñii de waruñu dugg ci bureau bi ñu ne kan moo ci war dugg mu ne électeur bi bu duggee day wane carte directeur am pour ñu xam man moom mooy kan moom la ci photo moom la ci tur moom la ci bu fekkee ne ñaari Ousmane Badiane ñoo fa daje ñu ne ah kii doomu Babacar Badiane la ak Ndeye Ndiaye ngoonte bon yow la permis de conduire mënu ko passeport mënu ko certificat de santé ak vite fait yi mu ci bëgg a boole ak bokku ci on ne peut pas voter avec ça le président s'est réveillé dans un <coughs> traumatisme électoral président report ou pas du ma dafa xam nga lan laa léeg-léeg ci loolu mm. yow journaliste nga depuis quinze ans yaa ngi fii ku yore élection yi ministre de l'intérieur boo amee fulla da ngay jël sa caméra nga dem seeti ko nga ne ko ndax dañ koy reporté wala déet. terewul ñu laaj la ñu xalaat. non du ma ko laaj. du ma ko laaj man boo ma ko laajee parce que joruma ko defaruma ko santewuma ko li ñu ma sante def naa ko maa ngi fii li ñu la sante mooy nga jëli information bi ak lu tax nga wax ñu ko boo ko ñemee bu ëllëgee nga xëy defi ko. C'est ça on vous attend. C'est pas de venir de nous poser, c'est de participer à la vie citoyenne. seen journaux yëpp vous êtes vingt journaux treize journaux benn soleil rek yéen ñëpp yéen a coûté le poter manqueur jeu de cartes Macky se brouille dans les dans les cartes il est noyé dans les cartes yéen a ko wax mais dem leen ngeen laaji ko ko jouez votre jeu. Et ça n'exclut pas qu'on demande ton avis. Non, je n'ai pas un, je n'ai pas parce que je ne reporte mon avis. da nga ne mun tu ma ne on a également l'obligation de demander l'avis à tout le monde. da nga bugg a bref man je ne suis pas dans le débat je suis un modérateur. d'accord parfois aussi nous ne sommes pas bêtes. nous sommes athées intelligents. vous organisateur des élections vous ne pouvez pas demander au ministre des Finances vous le demandez au Premier ministre au ministre de l'Intérieur et au président de la République c'est pour cette raison président ça n'exclut pas qu'on vous demande votre avis. xam nga da nga bëgg ñu toog da nga bëgg ñu toog non parce que tamit xam nga y a des cohérences yoo je je voudrais qu'on s'y mette un peu quoi avec euh, tout le respect qu'on vous doit. mais alors tu, me dire parce qu'il est malade il a un trottoir nga ne lu tax mu jot. ça n'a rien à voir président ma ne. je ne tu es juste ton avis. ce que tu en penses je ne suis pas dire je ne je ne pas polémiquer. non je ne polémique pas la question. Mhm. elle est destinée au ministre de l'intérieur. d'accord on avance faut-il reporter les élections. ok si vous êtes des journalistes. Mhm. ayez le courage quand vous serez en face de lui poser la question. Mhm. mais pas à nous. Posez-nous la question si nous marchons je vous ai que je la leçon voilà vous votez je vais on, voter. on avance ok voilà on, donc vous avez raison <laughs> mais la société civile a fait ce qu'elle avait fait. Euh. yaa nga foon maa on a prévu on a prévenu mais vous qui avez été prévenu le régime en place mais dégguñu ñu mais bu fekkee ne lii lii lii la ñu bëgg mais Ibrahima euh, Ousmane. xanaa ci loi lañ koy def dañuy war a modifier loi électorale bi yow expert électoral nga mhm. obligatoirement ah très bien comme dañu war a modifier loi bi mais loi bi nga modifier barke démb le 6 juillet tey le 20 yow amuloon benn aperçu ci diggante bi ni li ma naam man 46 listes jaaxaluma mm. man j'aurais cru que dinañu am 280 listes parce que am nañu 280 partis tout à ku créer parti war a mën a uti au moins poste député ça ne me surprend pas mënuloo xëy suba ci benn koñ nga am junniy jullit junniy yéeféer yuy tuub te doo yokk jàkk ji loo am fukki gan si sa kër te doo yokk ceeb bi mais loolu la ñuy xaar donc loolu man jaaxuloo mais dama ne comme d'accord nga ne dañuy changer loi électorale bi rek dinañ dajawaat fii nañ ko jot alors euh, malheureusement on va un dernier tour de table ku nekk nag moom mooy. si si si fi lañ jógee ñëw fii boo xoolee bu baax non non boo xoolee bu baax si Pape Samba lañ tàmbalee. Euh, donc on revient avec Ndella. voilà donc moi bon Ousmane su ma ko déggee muy wax bon damay tiit. lan moo la tiital Ndella. voilà damay tiit parce que c'est un aveu d'échec un aveu d'échec donc dafay avouer carrément que dafa tële. te loolu man damay tiit quoi parce que il représente Benno Bokk Yaakaar représente l'État donc munu munu munul euh, euh, wax wooy y a pléthore de listes mais comme lu Doudou wax Wade wax y a beaucoup de partis mais quand même parti yëpp war a participer si élection population baa ngi yokk di augmenter donc euh, nombre de députés yi à l'Assemblée nationale dañ ko war a yokk ça sera plus tard quoi si benn projet de loi pour augmenter le nombre de députés parce que actuellement a tuuti parce que population baa ngi yokku. est-ce que soxla nañu autant de députés. mais bon autant de députés. autant de députés bon hmm. moi je trouve que à ce stade là. dañu war a yokk le nombre. ah dès l'instant que parti gars yi dañu dafa bëri déjà yow ngay encore dañuy yokkaat. ah non non madame je suis pour qu'on augmente le nombre de députés. je hmm. parle là sérieusement. et parce que euh, je le rejoins quand il dit que tout parti politique da nga war a bokk ci élection. d'accord léegi nag moom ci boppam. waru repro waru ne ñun tous on est responsable. on est responsable parce qu'on a voulu tous participer à des élections. Mais c'est quoi cette histoire C'est un aveu cinglant d'échec. Ils nous ont prouvé qu'ils sont incapables d'organiser des élections. D'accord Élections législatives yi ñoom xamoon nañu carrément que y aurait y aurait des difficultés soo ko déggee ni muy waxee rek nga xam ne ñii xamoon nañu que duñu mën a joxe carte électeur yi carte biométrique yi parlons-en il y a des problèmes de puce on parle am na puce wala amul puce ça sert à quoi Dites-moi maintenant, euh, et là je vous interpelle, quelle est la différence entre cette carte biométrique et cette carte numérique d'Abdoulaye Wade président bu ñëw rek dafa kàttam wax ma léegi quelle est la différence. dina ci tontu Ndéla c'est clair Moussa voilà. non je suis pas terminée. Oh, rapidement parce que il faut mu wax ñu quelle est la il y a aucune <coughs> pratiquement aucune différence man dem naa ba daaf ñu won ma naka la ñuy defaree carte yi dégg nga wax ji. woon na naka la ñuy identifier carte bi su fekkee Pape Samba Mboup ak cartam su ñëwee am na benn appareil boo xam dañ koy teg si écran bi nga gis que Pape Samba Mboup la avec toutes ses filiations derrière mais appareil boobu doo ko gis si bulletin de si si euh, bureau de vote yi donc ça sert à quoi à enrichir des gens à enrichir des gens cinquante milliards pour ne am na ay cartes soi-disant biométriques aucune différence avec les cartes numériques dans tous les bureaux de vote du Sénégal amul benn appareil buy permettre d'identifier la personne c'est de l'escroquerie dégg nga wax ji c'est de l'escroquerie donc les élections c'est du business pour ceux qui sont habitués à participer aux élections mm-hmm. c'est du business ça sert à ma ne élection day tax business mooy c'est élection euh, day permettre affaire xaalis la cinquante milliards yu mu wax si cinquante milliards yooyu donc pour carte yi rek la de am na yeneen milliards RTS dix milliards mais xoolee RTS yu ñu def dix milliards dañuy jox RTS ils sont incapables d'acheter quarante sept ou cinquante caméras pour nous permettre de faire notre campagne calmement qu'est-ce qui se passe yaa ngi jiite mbooloo waat on est tous traumatisés c'est le traumatisme qui revient cinq jours ngay am benn équipe itinérante cinq jours nga war a dem si benn studio cinq jours nga amaat benn équipe mais on se on se on se moque de ti affaire yabaate la heure bi c'était l'occasion pour la RTS d'avoir ses 47 caméras ou 50 parce que dañu waroon prévoir que dès l'instant nee nañu que dafa am ay indépendant yoo xam ne am nañu euh, droit participer à ces élections danañ am ay pléthore de liste bi ñu wàññee caution yi ñun bi ñu bokkee en c'était millions bi ñu wàccee ko 15 nit yi ngi participer suñ ko defoon 20 nit parce que les gens en ont marre ils veulent avancer dëkk bi dafa métti dégg nga wax ji donc dans cette histoire élection la liste bu nekk xam nga ñaata la nga jox baat imprimerie cent vingt cinq millions par liste la imprimerie bi di am pour faire quoi pour votre information pour def bulletin de vote pour def affiche yi profession de foi ak spécimen mais c'est du business da ngay gis benn imprimerie boo xam ne day gagner neuf candidats neuf listes 125 multiplié par 9 donc tey tey nag ñu xaar ba tey dañu nekk bon euh, euh, mënuñu mënuñu mënuñu satisfaire les Sénégalais mënuñu leen jox seen carte biométrique xamoon nañ ko kon ça c'est fait exprès pour enrichir des gens. des gens merci Ndella c'est clair euh, Moussa. alors da ngay xool ban bu ngay tëjee parce que c'est le dernier tour de table. c'est le temps malheureusement nous en rattrape. c'est pas grave amul amul amul problème uh-huh. mais yenn saa yi dañuy réer su suñuy analise xam nga coalition bu ñu sayoon ñëpp coalition la ñuy def coalition de jouer sur le nombre de partis yu bokk da koy réduire aujourd'hui boo demee coalition bi ñaata parti fa nekk cinq six sept huit neuf dix yoo xam ne ku nekk mënoon naa nekk candidat ñoom ñëpp tey booloon nañu benn liste la ñuy déposé maa ngi ko même chose sept huit partis ñoo dajaloo si biir parti bi ñoom ñëpp mënoon nañoo nekk candidat nekkuñu candidat dem déposer donc sous ce rapport là ce n'est pas parce qu'il y a des coalitions qu'on a des problèmes les coalitions ont aidé à régler à régler le problème la deuxième chose question strictement kii sama benn collaboration moom muy posé tey le problème ce matin ki nga xam ne le 30 juillet lay am 18 ans am na droit wote mm-hmm. am woon carte d'identité mm-hmm. lan lay wote permis de conduire wala carte. récépissé la amoon ah oui amul mi ngi doon am 18 ans amul sax permis de conduire. mais mu jël facture téléphone am. peut-être wala SDE. c'est ce qu'il faut. mais amul amul sax kër amul facture bu nekk trop. comment il va voter. c'est-à-dire je vais vous dire gis ngeen. gis ngeen Ousmane Mia je le connais très bien. c'est vraiment un homme de valeur. parti bu mu bokk c'est des gens de valeur. les gens que je vois autour de Macky Sall et Macky Sall lui xam naa leen. il faut que se débrouille ñun juste pour respecter les Sénégalais gis nga dama bëgg man tey fi ma toog tey di wax suba su affaire change changé tam ma dem ci nguur gi que je garde le même discours il faut ñu bàyyi vraiment la variation du discours selon ko dañoo nekk au pouvoir ou dañoo nekk dans l'opposition nous sommes des gens de principe c'est des Sénégalais qui nous écoutent amène ñu respect aujourd'hui da ngay rus Sénégal ne politicien nga lu ngay yekk ci dëkk bi moo metti juste parce que il y a des comportements qui sont dans notre société il y a des choses qu'on ne peut pas faire on peut pas ñëw suba teel Sénégal yi nga jël seen cinquante milliards xëy suba teel ne leen tey ñeenti fan la waaye moom ko leen def élection après nga ne lan ngeen bëgg ñu def on peut pas xëy suba teel de jouer avec les institutions de la de notre pays nu ñoo xëy suba teel jël nit sànni si def lële il y a dafa am ay défis yu ñu am yu ñu war a relever si trajectoire boobu la ñu nekkoon depuis 92 on y est cest que Sénégal c'est dëkk la boo xamante ne y a des gens qui sont morts dee ñu rey leen ci biti PDS mii am nañu ay martyrs pour ñu def ay conquêtes démocratiques gis nga ouverture de la télé la door nañ si ñoom Ablaye Faye ci mbedd bi marche nañ fi pour Mandela ñu duma fi ay nit dañ fi xeex pour am ouverture de si média yi dañu fi xeex pour am ONEL dañ fi xeex pour am euh, accès à HCCT dañ fi xeex et cetera et cetera cetera xeex boo xamante ne ci mbedd bi la xeex boo xamante ne ci assemblée yi xeex yoo xamante ne 23 juin dañoo daje juste parce qu'on a touché à nos institutions avant gaz bi yokkoon nañ ko yokkoon nañ fi diwlin yokkoon nañu ne kenn bougé wu 23 juin on s'est levé pour pour pour changer mais def toutes ces batailles là. aujourd'hui sénégal yi am benn yaakaar gu ñu am si nit ñi waroon a construire benn démocratie apaisée waroon a respecter euh, l'état de droit respecter les principes républicains ñu xëy suba teel sur un droit minimal xam nga élection mooy lan mooy occasion bi nga xam ne moom la ñuy delloowaat réew mi sañ-sañam waaye mm-hmm. mais j' explique dafa du dafa lay metti quoi cest benn occasion boo xam ne la ñuy delloowaat réew mi mm-hmm. sañ-sañam benn yoon tout le reste démocratie représentative la député mooy toog assemblée nationale wote su wotee ñu ne réew mi moo wote bés bu ñu demee ne ba nga xam ne loolu sañ-sañ boobu la delloo bu ñu fowee askan bu ñu fowee réew mi bu ñu fowee nit ñi nañu fexe li nga xam ne moom la ñu warloo ak ñoom ñu def ko il faut qu'on respecte les principes compte non tenu de suñu position yu nekk dans la gestion de l'État c'est clair euh, Moussa euh, Ousmane Badiane merci nga nga nga tëj rapidement du ma ci sori dama bëgg wax sama sœur Ndella mhm. différence bi entre carte numérisée ak carte biométrique bi c'est que ci carte biométrique bi à puce carte boobu day jël quarante applications beaucoup plus même am na information sécuritaire d'abord moo tax ñu jël ko dans l'espace de la CEDEAO pour ñuy trafiquer wala ñu ñuy jéem a rechercher et cetera ñu mën leen identifier très facilement am na des informations sanitaires carte bi mën nañ mën nañ ci xam sa sa groupe sanguin am na des informations bancaires am na des informations à sécurité à caractère à sécurité sociale. tout ça oui oui xamu leen ko mais bi pas. binduñ ko ci carte bi c'est ça c'est pas lisible c'est pas textuel. il y bu ñu ko dugalee ci marché yi les c'est des options d'application mais bu ñu ko dugalee ci parce que daf koy lire daf koy lire daf koy lire c'est ça mm-hmm. donc loolu mooy différence bi moo tax très important mm-hmm. man nga tëj buñ buggee résumer actuellement problème bi moo di uh-huh. nekk situation boo xam ne bi il faut qu'on soit clair li am am na ba pare on a 6 millions ñenn ñi ne nañ waruñ changer date élection yi d'accord buñ ko changer mais comment faire pour que ñooñu ñoo ëpp ñu mën a voter. mais loolu wax nga ko mooy comment faire que ñu mën a voter. mais waxu leen ko. li ngeen wax moo di daj kii ak dem. occupé comment faire pour mën a voter. moo di mesure yi président suggéré. ñu jéem a jël yeneen mesures yoo xam ne pour faciliter le vote néewuma dañuy accepter cinq yi ñu wax yëpp ay carte d'identité ak ay passeport yooyu waxuma ko de. Mhm. mais mun nañ ne mun nañ jël quand même raisonnablement. carte nationale d'identité numérisée boo xam ne bi ah y a des informations. ñu ak ak ñu kooku bu ñu ci d'accord ce sera quelque chose parce que au moins ñun li ñu intéressé moo di ñu ceux qui sont dans les fichiers mais nag yow mu yow yow nee nga bëggu changer dara bëggoo loolu te xam nga ne nit ñi mënuñ jël seen carte te délé bi ñëw na moo di lan nga bëggu ay trouble am ay problème am. parce que buñ naree wootee ni ñu nar a suba ay soulèvement rek mooy am d'autant plus que yéen ñan yi dem ci envahir quartier yi le jour le le c'est très grave ce qui va se passer. je vous le très sincèrement. ñoom ils ont donné des mots pour que ni ñu ñëw le jour où les cartes seront dans les de vote envahir centre de vote yi mu am ay véritable pêle-mêle. violence am fa. voilà élection bi yàqu ñu wala. Euh, euh, leer na leer na la euh, échoué na la bëgg. loolu nag Sénégal yi duñ ko nangu. parce que faru leen ko woon. Mhm. kii c'est pas une élection présidentielle c'est une élection législative. leer na président leer na président Pape Samba Mboup rapidement. temps vraiment jeex na on fait juste un bouclage mu jeex la fin wala on Diarogo. non bon yi rek. président en une phrase. waaw mais mais Ousmane loolu nga ñu wax léegi dañu ñoo ko wax waxuñu ko yaa ko wax dama eh, dama dama yaru pour wax la ne loolu déggoo ko fenn fu ñu ko waxee eh, dama ànd ak yar parce que xam naa suma diggante yow du wax mais nga ne waxoo ko non yow waxuloo ko attends mais wax wax nga dama ne suñu parti waxu ko suñu parti li wax mu ngi koy di seen parti seen coalition laa wax ñu ko ci wax seen temps d'antenne encore seen coalition on va paralyser ce jour là dans les centres pour que nit ñi bañ a wote ñu ñëw envoyé. Ah, président c'est bon on t'a on xam nga seen coalition yéen ak Moustapha Diakhaté moo ne nañu renvoyer élection yi xanaa man leer na. voilà non pare wu ma. rapidement ci des. Mhm. am am na ñu wax si yéen. mais am na koo xam ne ki nee na boo leen amul carte da ngeen def comme ni Macky jotee na dóore am na ko koo xam nga mais est-ce que war naa gëm kooku wala une question. voilà bon euh, mais attends dama bëgg daal wax Sénégal yi ne leen ñu ngi jëm ci élection yoo xam ne yi pour la première fois agsi nañu ba ci juróomi fan élection yi kenn xamul lan ngay voté ba président de la république Macky Sall jàpp na ne mën nañu voté sax ak carte de santé loolu moom la laaj conseil constitutionnel bi ko waxoon ne man nga def lu la neex ci révision bi ma leen di jàpp wax ne nag seen président bi ngeen xam moom ngeen tudde garde constitution gardewul constitution bi xamul nu ñuy garder constitution bi te awul si yoon moom mi nga xam ne moom la ñañ ñoñam yi wax ne ne wax ne bu fekkee ne man naa am nañu def comme na mu defoon. président ku amul carte d'identité am nga droit dóore pour voter. Doudou Wade Doudou Wade coalition on ne juge pas un homme politique sur président merci merci. moi je juge sur les euh, actes. mais il a mais que il l'a c'est parce que a fait Pape Samba coalition Mbooloo Wade président s'il vous plaît on a du respect pour vous s'il vous plaît je respecte aussi voilà Samba Mboup coalition Mbooloo Wade Doudou Wade coalition gagnante wattu Sénégal blague mooy attaqué <laughs> Ndella Madior Diouf euh, euh, convention citoyenne neneen euh, Moussa Manko taxawu Sénégal Ousmane Badiane Benno Bokk Yaakaar professeur Ousmane Sène nekkoon ci téléphone bi di doon wax ci turu WARC Euh, ñu nekkoon fii nag pour émission législative 2017 merci de nous avoir suivis excellente soirée à tous